Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de du like, merci de de abonner, merci également gars de baisser des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager gain information en box sénégalais, fait folle maintenant 14 régions du Sénégal, à nous wërngal kep ñi ngi leen di jaajeufal ñi nekk également ci la l'hôpital ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñi wër ak jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire ak génne lañu defal moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen njaboot ñuy dëddoo àdduna suñu borom sommes leen àjjana fi daw si gars yi te on avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité en continu gay. Actualité, ñu fas yéene waxtaane avec moo donc Sadio Kaiser magnifique Mané. ak ki nga également mooy donc kii di Bouna Sarr nga xam ne gars dafa am image bu exceptionnelle bu am tey moom ak di Thomas Tuchel ñu fas yéene ko waxtaane mais d'abord, abord gars yi di leen ko chaque fois am na lien bu épinglé ci kaw dem abonné ci Baba Show encyclopédie wax naa leen ko lépp luy histoire football Sénégal actualité politique Les lépp lépp loo war a xam loo xam peut être ignoré ngeen ko ci football ci Sénégal et tout dinañ leen ko leeral incha Baba Show vidéo ngeen seetaan également vidéo yi da di bës na cloche de notification mais aussi ñi abonné wul ci Sport TV abonné leen yéene kaay yi nag suñu lomb li moom poisson d'avril lay a daal di tëgg daal la wax Ama Baldé moom donc ba léegi daal CNG nañ moom dafa daal di inapte mën a euh, ñu yokkal ko ñetti weer li nga xam ne nag mooy donc lii di euh, record euh, ki nga xam ne nag mooy donc Sadio moom donc nee nañ actuellement daal ne mooy Thomas Tuchel de cette équipe donc du Bayern de Munich Yenne Kaybinak bi nak di stade ñewne Mané et les Bavarois sous haute pression L'Oldal, dal lañu fësal ci li nga xam ne bi ñu war a euh, euh, nag mooy Tribune Sport ñu wax ci li nga yoo xam ne jongante yu ñu war a amal tey jii nii la direction nag gars yi dem fa nga xam mooy donc ca Espagne bi nga xam ne nag moom donc pro Madrid la muy AS AS ñëw ne Alaba Vuelbe Ganias mu ne al kii dafa ñëw ànd ak beneen motivation ñëw pour gagner Alaba bi nga xam ne temps yi manqué woon na loolu équipe xam ne nag mooy donc waa Real Madrid et que classico bi il devrait être présent Pour faire qu'il dara jotu ko ci diggante bi incha nga xam NBA nag Anthony Davis il a été exceptionnel cette nuit Hein. donc nous ñu permettre Lakers d'arriver di 123 à 111 38 points 17 rebonds ak euh, ñaari également euh, performance exceptionnelle la def ki donc qui Anthony Davis Qui nag di Stephen Curry également Nous hein, it di permettre donc euh, les Golden Cette nuit daal di gagné 33 points Nous avons Mom. def tout 5 passes ki nga xam nag aujourd'hui hein, l'un des meilleurs euh, tireurs à trois points de la NBA. Gaïnakan, hein, Hervé Renard et sa fille qui a Wendy Renard ngeen gis ko ni ah donc la famille Renard est réunie donc beaucoup disent que ni Hervé Renard est le père de Wendy Renard en tout cas gars yi loolu la ñuy wax fi mu ne nii gis ngeen ko moom nag lañ tam mu nekk sélectionneur donc de cette équipe euh, de euh, France euh, ki nga xam ne nag gars yi moom ngeen di gis ni lay laajte ñii daal gars yi ah buy wax football Sénégal ñii si seen génération la Sénégal commencé waat di jugaat ci football avant ñu El Diouf di ñëw ñoom ñoo fi nekkoon boo leen mënee lim ñett lañ ñett lañ boo leen mënee lim ñett ñi kenn ki ku sew ki bokk ci mais ñett ñi ñii ñan la gars yi wax leen ci ki nga di gis ni également di Juan Laporta dafa def déclaration wax ci li nga xam ne nag mooy affaire Negreira bi nee na gars yi ñi nga xam ne ñëpp dañuy wax dañoo bëgg a yàq deru Barça yi tout ñun loolu duñ ko nangu dinañ ci teg sama bakkan sax naa ko ci teg pour wax ne loolu amul donc bu leen ñu jéem a sax di naan da nga ñu jéem a ruube loolu daal la daal di wax kii di Jorginho Deste nag moom day dellu si ci Barça wax naa ne ko ndax ñii rek bi Milan AC facile mu ñu lever option d'achat bi mais nag Barça aussi bëgg ko mu toog da ko bëgg a jaay am na club yu bëri yu nekk ci ginnaaw ñu ngi wax France di wax ay Russie di wax yeneen dëkk mais moom daal fi ne décision jëlaguñu kii nga xam ne également mooy Ferland Mendy fen la mel ni daal doit ba euh, ñi di wa Real Madrid jamono ji duñ ko bëgg jaay ndax japp nañ ne euh, moom dal actuellement nekkatu ci quoi nekkatu ci blessure yi dafa bëri lol lol lol lool lool Ferland Mendy donc bokul ci ño xamne actuellement gay yi ñu ngi leen di euh, bëgg dañ ko bëgg gi dakk lol lañ wax ki nak di donc Erling Bro Haaland tay il n'est même pas donc dans le groupe convoqué par Manchester City selon les dernières informations et ki xamne moy ne Alvarez mo dara nekk titulaire au niveau de l'équipe de Manchester City contre Liverpool ki ngeen gis également Ousseyn Awar Ousseyn Awar nag moom nee nañ jamono ji moom Milan AC daal ñi ngi toppante ba léegi Milan daal def na booy bi bokk ci cibram mais rien n'est signé concrètement mais bokk na xam daal nee nañ gars yi waxtaan baa ngi gën a avancé diggante Ousseyn ak Milan AC ñu des si Milan AC bi nga xam nag Leao gars yi nee nañ nag ah, léegi euh, déggoo am si diggante Leao ak Milan ndax daal ñooñu mel ni d'accord nañ ci yenn ponk yoo xam ne tënkoon nañ ko et que Leao daal day moytu day prolongé du côté donc euh, du Milan AC donc le la gars wax Pato mom nag nena man dama parier ci Ligue des Champions bi Milan dem demi-finale waaw te bu Milan demi-finale mom nañu espérer Milan dem finale mom le Pato wax Alejandro Pato ancien joueur donc brésilien du Milan AC mom dal dafa parier ci Milan AC demi-finale Ligue des Champions gars yi image bi ngeen gis ko ni Thomas Tuchel d'un def tay ci suba euh, dernier réglage tactique bi. ñu gis ne vingt et un joueurs ñoo nekkoon ci terrain bi moom vingt joueurs la soxloon pour régler tactique bi mu daal di woo ndeysaan ki xam ne mooy donc kii di Bouna Sarr la woo donc pour expliquer un peu neko du bok ci li nga xamné nak moy donc groupe bi mu convoqué ngeen gis si waxtaan bi nii donc mu koy expliqué Thomas Tuchel a pris le temps d'expliquer à Bouna Sarr ne non tay mom duma la bolé ci groupe bi lolou daal nek lo xamné ne nak euh, image la boo xam euh, du neex ci xol quoi surtout pour supporter sénégalais euh, du neex ci xol quoi mais mi ngi noonu donc Thomas Tuchel dal ci entraînement yi la woo Bouna Sarr ko neko bon voilà ba entraînement bi jeexee mu ne ko bon yo dal tay duma la convoqué lolou dal la wax donc il ne sera pas sur le dans le groupe bien entendu contre le Borussia Dortmund. Sadio Kaiser, Mané devrait être lui euh, sur le banc

poser souci pour ñëw titulaire la titulariser leen donc ñi ngeen gis ni titulaire ñoom ñoom ñoo jëkk jouer joué Sadio Mané boobu ñooy yàggul mais on espère que ne incha allah match yi di ñëw dina jouer et que bu jouer tax tey remplaçant hein. donc yàlla na dugal loolu la ñuy ñaan quoi gars yi nag bu leen fàttee lien baa ngi noonu ci kaw Babal Show ngeen di seetaan vidéo yi dafa am solo aussi ngeen di abonné en masse ñi abonné e iSportive yi dama leen abonné fële ñi abonné gul iSportive yi abonné leen iSportive yi abonné Babal Show et vous n'allez pas le regretter woy leen di like woy leen di abonné lien baa ngi noonu ma épinglé bés deen ngeen seetaan jaa ngeen jëf